ci euh, sànq lañ ko placé sous contrôle euh, judiciaire moom ñu ngi koy toppee euh, diffamation ak diffusion de fausses nouvelles Djibril alors qu'est-ce qu'on peut retenir déjà ci loolu wala ban analyse la ñuy def ci déclaration kii di Hadjibou Soumaré qui avait fait un texte di poser des questions ba mu jural ko li mu ko jural est-ce que questionnement yi mu doon poser jaroon na ñuy dem di ko toppee diffamation wala diffusion de fausses nouvelles mais en fait je crois que quand même Hadjibou Soumaré dama koy nuyu au passage kilifa bu mag la Sénégal bu ñu mm. respecté un homme d'état euh, man en tout cas en ce qui me concerne c'est une personne que j'ai toujours appréciée euh, ensuite nekk euh, un homme du sérail nekk liggéeykat maintenant je pense que responsabilité tam may na doomu aadama boo eggee ci yenn responsabilité yi nga war a bañ a toog naan kan moo sàcc ceeb bi bu sàcc ceeb amul y a questionnement yoo xam ne amul sens À la limite, ce n'est pas des questionnements, c'est une forme de communication d'une personne qui n'a pas pris toutes ses responsabilités dans la communication. Maintenant, une chose est que tu as des éléments sur le président ou sur, sur la gestion de l'État en tant que citoyen, vous avez le droit de le dire, mais faudrait-il avoir des informations Mais on ne peut pas se permettre, à ce niveau de responsabilité, d'être aussi léger que ça. Ça, je, je suis vraiment Euh, mais, mais euh, est-ce qu'on peut parler de légèreté sur des interrogations parce que bu doon affirmation boo xamante affirmation bu direct la bu mën nañ parle mën mais questionnement quand même on peut se dis de communication parce que faut qu'on soit clair Hadjibou Soumaré mm n'a pas fait ce questionnement ex nihilo comme ça dans le vide mhm. il l'a fait parce que y a un objectif on ne sort pas comme ça pour pour lancer une communication sur des questionnements ah, qui n'ont questionnement yoo xam ne amul sens mënoo xëy suba rek di naan euh, kan moo kan moo violé la personne X nga woo président ne ko kan moo kan moo sàcc euh, lii amul sens à la limite c'est une communication bu mu poser c'est des actes yu mu poser mais c'est léger asu fi mu jaar jaar jaaram ak nit ki nit nit ki nga xam xam naa ko quand mu nekk une personne bu am euh, bu am respect ci doomu aadama euh, damay déplorer peut-être mu mu comporté woon noonu maintenant euh, questionnement yi mu posé dafa am côté boo xam ne daf ci doy waar parce que li mu posé dafa njëkk quelque part di interpeller président pour wax ko est-ce que joxoo tant de milliards à une opposante qui est Marie Le Pen une opposante Euh, euh, c'est-à-dire euh, une femme politique en France une femme d'envergure en France que nga bëgg ko nga bañ ko am na lu mu peser en France mhm. président Macky Sall war na ko mën a recevoir parce que même apartheid bi muy am ñi ko porté mhm. mais dañuy waxtaan ak ñeneen ñi parce que toujours foog waxtaan am kenn mënul nekk ci réew ne du ma waxtaan ak diw du ma waxtaan ak diw quel que soit les positions de Jean Marie Le Pen Marie Le Pen mën na nekk président France parce bu nekkee président France dina wax ak Sénégal dina wax ak Mali dina wax ak Amérique donc loolu dafa am donc c'est une femme politique buy wut peut-être euh, am sur le plan stratégique wala ne moom au Français que je suis ouvert au monde ñëw na président recevoir na ko euh, dem na ku toll ni Hadjibou Soumaré xëy suba rek def ay questionnement c'est-à-dire à la limite dafa dafa parce que dafa susciter quoi beaucoup de gens commencent à dire oui Macky Sall jox na ko xaalis et ça c'est très grave. Hmm. parce que même par rapport à nos relations avec la France c'est c'est c'est des situations graves imaginez aujourd'hui hmm. que ñu ne la France jox na euh, un opposant sénégalais des milliards di ko préparer contre le président Macky Sall. Okay. ça peut même créer des conflits diplomatiques donc un homme d'État un homme de de de de sa carrure je peux comprendre yu yenn opposants yi bu ko defoon je damay xam ne ci la ñu dëkk chaque jour ñu def que des chose yoo xam ne c'est très grave mais Hadjibou Soumaré fi mu toll ci euh, jaar-jaaram sur le plan national sur le plan international. waroon na éviter def lu mel ni maintenant euh, woo nañ ko je pense que lui-même euh, apparemment li mu wax ça tient pas sur un fil tegul ci lenn. pour yow il a été induit en erreur. dañ ko non il n'est même pas induit en erreur je pense que. Mhm. moom moo xëy wax waxam. donc mënu ma wax ne on l'a induit en erreur dama wax ne il a été trop mais bi mu demee fële taxaw n'a pas confirmé donc voilà. D'accord. donc euh, Sénégal nag pays de droit la du lu waay neex xëy wax ci kaw doomu aadama. muy man en tant que citoyen asumaak une institution comme le président de la République. alors Moussa est-ce que euh, jaroon na ñuy yegsi ba fi ñu yegsi tey alors suñu déggee Hadjibou Soumaré euh, qui parle d'un scandale scandale où euh, ba tey revenir na peut-être sur ses sur ses propos yéen on va y venir le groupe Gëm sa bopp yéen tamit mouvement Gëm sa bopp wax ngeen yeneen scandale mais est-ce que jaroon na tey ñuy yegsi fii nii parce que ku poser interrogation la meilleure manière peut-être c'était juste de répondre ou de démentir. Ah, may jaaxal su ma gisee ku mel ni Hadjibou ñu koy traîner comme ça dans la boue parce que dafa am lu muy représenter ci réew mi koo xam ni dafa occupé woon une haute institution mu toog fa am jaar-jaar jàpp naa ni ba poser ay questions nekkul ay questionnement yu anodin mm-hmm. am na loo xam ni bëgg na ko insinuer mais li gënoon simple moom mooy comme dafa am benn démarche philosophique mm-hmm. nga xam ni même bu ñu ko répondroon sax réponse yooyu xëy na dina engendrer waat yeneen yeneen questionnement dama jàppoon ñu répondre ko moom mooy gën a taaral suñu démocratie. waaye comme li ñuy wax rek gouvernement bi ñu nekk nii dañoo am seen propre doctrine ak seen propre vision du Sénégal mooy ni tey dañoo gis ni ñoom ci gouvernement despotique la ñu nekk ci gouvernement boo xam ne c'est monarchique ñoom lu ñu def baax na waaye ñeneen ñi même bu ñu laajee wala ñu reetaan sax ñu jàpp leen ràpp tëj ci kaso bi te loolu gis nañ ko dem nañ ba kaso yi fi mu toll nii ñu fiy tëj ci ay motifs yi léger lañ leen di ma jàpp ni tey ñi nga xam ne dañoo gérer suñuy deniers publics nga xam ne dañoo am droit ñun laaj leen parce que ñoom dañu digoon ni bu ñu accéder au pouvoir li ñuy njëkk a def mooy transparence ak bonne gouvernance dafay nekk loo xam ne dafay ñoŋ ci mim réew. Mm-hmm. waaye li ñu seetlu moom mooy même bu ko Hadjibou Soumaré laajul l'écrasante majorité des Sénégalais ñi ngi poser les mêmes questions parce que amoon na question bu jiitu loolu fonds sept milliards u Taïwan yi am na ko posé woon président Macky Sall ni ko ci yan compte nga pourquoi yóbbuwul Idrissa Seck ma ko laajoon ci ndungu siin président Macky Sall am na questionnement yu bëri yoo xam ni yàgg nañ ko posé ku mel ni le président Abdoulaye Wade bu muy wax ni daf ma moo may set milliards moo may 8 milliards. milliards président Abdoulaye Wade dafa wax ni du dëgg. mais yooyu aussi ay autant de questionnements que les Sénégalais se posent te amul réponse jusqu'ici Sénégalais yi dañu sonn les priorités sont ailleurs jàpp ma ni war nañ nekk ci réew moo xam ni chaque jour da xëy benn jour te déggoo ay scandale à de milliards. Mm. la vérité va triompher la vérité va triompher parce que am nañ ay leaders yoo xam ni ñu ngi nekk ci opposition bi duñ tardé seen bopp xam nañ fi ñuy dut baaraam te dinañ éclairer la lanterne de sénégalais te loolu processus boobu la ñu commencé ak Hadjibou Soumaré ak le président Bougane Gueye Dany ak yeneen i lépp loo xam ne jaarul yoon danañ ko bàcc ci askan wi ba ñëpp xam ni nii la demee xaalis bi fii la dugg ci compte yi la dugg parce que tey dafa mel ni booy xool li Hadjibou Soumaré wax. prolongement la ci li président Bougane Gueye wax Hadjibou Soumaré li mu wax c'est très grave mm. parce que boo xoolee ku mel ni Marine Le Pen nga xam ne ni mu bañee nit ku ñuul mu lay rappeler leer avec la race aryenne mm-hmm. nga xam ne da doon wax ni métissage sax dafay mel ni blasphème contre la volonté de Dieu nga jël ku mel ni Marine Le Pen ñuy laam-laamee ba xam ñëw na nga jox ko ay pots de vin wala nga am loo xam da nga ko jox comme cadeau ci suñuy deniers publics ci réew moo xam dañu lay wax c'est un pays pauvre et très endetté pays boo xam ni nit ñi bu ñu xëyee bu ñu lekkee dañuy négocier guddi gi réew moo xam ne nit ñi bu ñu bëggee jàng ci l'école bi table banc yi dañ koy affecté trois à quatre élèves réew moo xam ni dañuy am abris provisoire réew moo xam ne boo demee ca jaxaay am na centre de santé boo xam ne ba léegi gouvernement mënu ko àggali réew moo xam ni hivernage bii nga xam ne mi ngi ñëw mi ngi commencé ëlëm bopp askan wi ak borom bopp borom kër yi. Mm-hmm. xam ni boo tegee sa table di jaay sañu la puusal du fii réew moo xam ni ku jàng ba pare doo am fu la réew mu xam boo feebaree mënoo faju mais réew mu mel noonu mënuñu comprendre à chaque fois ñu ñuy poser la même question scandale bi 1000 milliards scandale bi 98 milliards scandale 7 7 milliards et cetera ku mel ni le président Bougane Gueye Dany mm-hmm. dafa am loo xam dafa ko wax mu détaillé ko sénégal yi jusqu'au détail plus près mu leen